itam assemblée nationale gi mu nekkoon doog dikk ci tey ak fi mu toll ci wàllu politique ak li mu dëkkmal euh, sëñ bi bari ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci euh, démb ak tey. maa ngi lay fay Adja Fatou. te mhm. nuyu di euh, Dakar FM Rewmi FM yëpp. di ñaan yàlla rek ñu wax fi luy jëriñ askan wi. Mm-hmm. jërëjëf euh, Bari ñuy nuyu au passage euh, Modibo Diop bi nga xam ne euh, moo waral xamante bi. effectivement alors monsieur Bari ñu ñëw ci parti démocratique sénégalais gi nga xam ni. ca nga nekkoon nekkoon responsable Kër Massar. parti démocratique sénégalais ba nga cay nekk. ban jamono la ak xëy na ci ban situation la nekkoon ma bëgg a jaaree foofu ñëw ci crise bi nga xam ni tey ci la parti bi soobu. maa ngi lay gërëm di nuyu sama xarit boobu nga tudd léegi muy Modibo ndax euh, xamee ginnaaw yàlla ci moom la ko yàlla jaarale mm-hmm. waaye nag man su may wax sama jaar-jaar ci wàllu politique ci parti démocratique sénégalais ah mënumaa bañ a tudd caaray kaw yëmbal sud ndax foofu laa nekkoon xala laa doon politique ci kër ci ci PDS ba bi may toxu ci Kër Massar en 2003 mm-hmm. alors euh, man nag duma membre fondateur du PDS ndax PDS xam nga ñu ngi ko sos en 1974. man dugguma ci en dugg naa ci un peu plus tard. kañ nga dugg. vers les années quatre-vingt li ma mën a jàpp daal ci lu leer lu leer lu leer suma première rencontre ak maître Abdoulaye Wade ci cabinet bi nekkoon fële ci wetu commissariat bu Thionk euh, bu bu commissariat central fële bu euh, Thionk. Mhm. c'était le septembre boobu laa njëkk a toog ak maître Abdoulaye Wade ci juróom. suma benn mag bu ñuy wax Ifra Sow bi nekkoon responsable des éleveurs de la fédération nationale des éleveurs du PDS moom it mu dëkkoon Thiaroye Gare te Abdoul Abdoul Ba moo ma yóbbu woon ku maître Wade dama ko fàtte keroog la ñu toog waxtaan jour boobu it la ma présenté le président Abdoulaye Faye ndax dañu toog di waxtaan rek Abdoulaye Faye di traversé mu woo ko mu ne ko toogal mu toog mu ne ko kii c'est un jeune cadre di dëkk Thiaroye kaw kii dama bëgg nga encadré ko dama nga jàppale ca laa xamante ak Ablaye Faye ba fi may waxee donc sama dugg PDS c'est vers les années quatre vingt donc dix neuf septembre boobu laa toog président Wade maître Wade on l'appelait alors octobre ci la woon bureau politique bi ñu doon dàq Serigne Diop du PDS kon dama ngi sant président Wade le mois de septembre octobre le vingt cinq le vingt six octobre ñu def bureau politique quand je dis vingt cinq vingt six parce que bureau politique bi ñu commencé le samedi hmm. ñu yendu samedi fanaan samedi ba le dimanche matin ci la ñu doog a pare. ah oui saa oui keroog ci lañ doon exclure les seriñ Diop ci moo doon événement wu PDSR yi nga ci doon dégg ci jamono yooyu c'était en 1985 alors ñu dem ñu dem ba 1987 ñu def conférence nationale des jeunes ñu ngi ko defee cinéma El Mansour ci lañu ñu porté woon Joseph Ndong à la tête de l'UJT c'était pas l'UJTL c'était l'UJT l'Union des jeunesses travaillistes mais loolu yëpp moom ma fekk caaree kaw quartier Thierno Ndiaye Thierno Ndiaye moo doon le président de la section man maa doon le secrétaire général de la section du PDS à foofu Sud hmm. ñi fa nekk ay responsable ñi tey samay samay poulain la ñu woon suma ay rakk la ñu woon suma ay jarbaat la ñu woon suma ay xarit la ñu woon donc ñun ak ñoom ñoo àndoon di liggéey ba bi ma toxusee fii à Kër Massar en 2003 hmm. toxu naa Kër Massar en 2003 sax continue di militer à Yëmbal le 31 décembre 2009 quand j'ai invité Karim Wade ici à Kër Masar hmm. jour boobu laa def sama déclaration pour militer à Kër Masar depuis lors donc maa ngi Kër Masar fi laay militer. Hmm. alors euh, ban beneen événement bu euh, am solo nga dund ci parti démocratique sénégalais bala ñuy ñëw ci la la fa génnee. waaw mais événement yi nga xam ne moo gën a am solo ci ko xam ne ci jaar nga ci PDS tuuti mooy les événements de 1988 88 yi fi la ma fekk njàpp ma ca laa bokkoon. Thierno Ndiaye moom waaw mooy mooy xam nga dañoo def élection yi avant sax ñu joxe résultat yi Abdou Diouf dugg ci dëkk bi jàpp responsable PDS yëpp jàppale président Wade avant sax ñu proclamer résultat yi ba finalement bataille bi nekkatul woon bataille contestation des élections mais c'est toute la bataille pour la libération de maître Wade gis nga ni ñu détourné jeu bi mhm. léegi dañu def élection yi ci guddi gi ñu jàpp responsable PDS yëpp jàppale maître Wade alors léegi bataille bi nekkatul affaire u élection yi mais maintenant comme jàpp nañu Wade maintenant on se battait pour libérer Wade. talatu leen élection yi. talatuñu woon élection yi. et tu as ngeen ne leerul. non mais kay nag moom bi mu deux mille la la Wade mais ba mu bu leeroon yàgg na kon président gagné woon na bu yàgg mais deux mille la élection yi leer deux mille la président Wade gagné. donc 88 événement yooyu amoon na ñu jàpp ñu ñëpp def ñu ci kaso trois quatre mois dëkk bi tàng jër ba loolu sax moo dem ba ba ba ba ba ci gouvernement élargi boobu fi amoon en mille neuf cent quatre vingt onze wala mm. Maître Wade était ministre d'État alors y avait les Ousmane Ngom y le les Aminata Tall les Jean-Paul Diaz y avait Idrissa Seck alors ñu nekk ci gouvernement élargi bi mille neuf cent quatre vingt onze boobu loolu amoon na fi ci ci ci ci ci yooyu jamono yooyu amoon na fi ci yooyu jamono lan moo la génnee Parti démocratique sénégalais voilà loolu nag beneen histoire la aussi kooku événement yi am en 1998 la woon ndax élé 1998 bi ñu defee élection législative yi ba pare alors euh, y avait la bataille de positionnement comme toujours d'ailleurs entre Idrissa Seck ak Ousmane Ngom ñoom ñaar ñu doon xeex kan moo war a nekk numéro deux kan moo dul nekk numéro deux y avait déjà Ousmane qui était le numéro deux à l'époque bon kon bataille bi déclenché na Wade avait demandé à tout le parce que dafa ne ñëpp léegi vous êtes des leen di dégommer yéen ñëpp dem leen à donc ñun on était du côté de du, du côté de Ousmane on a jugé que à l'époque vraiment en notre défaveur alors ñu ça ñu mer alors après ñu dem dem créer un parti qu'on appelait à l'époque le Parti libéral sénégalais le PLS mm. en 1998 mm. mais je signale qu'en 98 déjà avant loolu di am man j'étais déjà élu à l'issue des élections législatives dont je t'ai parlé tout à l'heure okay. en 98 j'étais député sur la liste départementale de Pikine et quand je dis départementale de Pikine mooy Guédiawaye sax boobu temps amagul woon Guédiawaye était dans le département de Pikine effectivement waaw tout à fait mm-hmm. alors euh, parti bi ngeen taxawaloon ak maître Ousmane Ngom fu mu mujj waaw boobu parti bi xam nga dundul lu yàgg dundul lu yàgg <laughs> xam nga ça fait kon est que seen génn bi c'était pertinent amoon na amoon na njariñ. waaw man de génn bi wax dëgg yalla man personnellement di laay wax man personnellement aw ma woon benn problème ak maître Abdoulaye Wade dama dugg ci xeex boo xam ne rek peut-être man sax sama yoon nekku ci woon mais je me disais que Ousmane était alors euh, ñu ngi ko doon néewal doole ma ànd ak moom rek ci boobu xeex mais xeex boobu man sama yoon vraiment nekku ci woon. Hmm. et d'ailleurs et d'ailleurs li ma gën a gën a gën a ci politique na ci. dugg ci xeex boo xam ne su ma yoon nekku ci. Hmm. ay combat derrière kàddu yooyu. loolu moom bokk na ci li ma gën a gën a gën a rëcc ci politique. Hmm. ndax xeex moom la bu Boubacar Sall fu Boubacar Sall yàlla ko yàlla yërëm danoon wax naan koo bokk loolu jom bu dugg ci xeexam. Hmm. loolu je l'ai bien retenu de Boubacar Sall koo bokkulul jom bul dugg ci jàngal na ma loolu. beneen jàngal bi itam nee na ma politique tant que yaa ngi mën a wax sa noon mën nga politique. mais ku mënta wax ak ku mënta wax ak noonam rek dese naa mën politique. nee na nit war nga mën a jàkkaarloog moom xam ne kii bëggu la gis bëggu la dégg. Hmm. waaye nga mën a am mat gu toll ni ka toog di wax ak moom tout en sachant que kii ngay waxal sa noonu la. loolu waaw waaw waaw masla ah. loolu loolu Boubacar Sall jàngaloon na ma ko. Mm-hmm. alors tey booy xool parti démocratique sénégalais Amadou Barry ban yëg-yëg ngay am ak coow li fa am ñiy dem euh, ñeneen ñi fa des itam daanaka euh, la yàlla xam doy na noo noo gisee. PDS mais mais soxna soxna Fatou loolu loolu loolu loolu loolu dafa ànd ak sax dundu PDS. PDS ay départ ak ay yu kenn xamul yii loolu du lu bees PDS de du lu bees PDS nit ñi dañuy fàtte xëy na. mais depuis sa création 74 lay wax de 74 ba fii may wax ak y' a que des départs au niveau du PDS et de grands départs. Hmm. mais nag waaw ah oui je commence par le feu Fara Ndiaye Fara Ndiaye moo njëkkoon nekk le secrétaire général adjoint du PDS ci création bi depuis 74 après y avait les Boucar Sadji ñun ñëpp dañoo dem ay Jean-Paul Diaz Idrissa Seck Ousmane Ngom Aminata Tall mais boo leen doon lim tey du jeex. ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ils ont quitté le PDS mais xam nga doole PDS c'était quoi encore à l'époque mooy départ yi ténor yi dinañu dem mais en général ñiy dem dinañu yóbbaale sax quelques responsables mais du ñu yóbbaale le socle du ñu yóbbaale la base hmm. alors que le PDS était tellement bien structuré que yóbbaale militant ou cellule wala secteur à l'époque parce que structure base bi c'était la cellule qui faisait vingt cinq personnes yóbbaale benn membre du cellule wala benn membre secteur wala benn membre section c'était très très difficile. Hmm. mën nga dem nag yóbbaale sa ñaari xarit yu mag ñetti xarit yu mag yu am tur ñëpp leen dégg mais bu ñuy dem en général du ñu yóbbaale ay nit yu bari loolu moom je la constate c'est la réalité c'est la hmm. triste réalité. d'accord alors tey nag nii mu demee noo ko gisee. waaw nii mu demee ça se comprend parce que xam nga bataille de positionnement am bataille de leadership moo am. Wade bi pour moom il faut donner ça à Karim yaa y a qui ont accepté de rester il y a qui n'ont pas accepté et ils sont partis et mu ñëw foofu ci sama diggante ak Karim Wade aussi pour te dire que l'histoire tey dafa ma jox raison ci moom. waaw parce que bokk nga yow ci ñi doon wax ne génération du concret erreur bu mag la. moom dama ko wax waxuma ko sax ci mbedd mi Karim ci boppam laa ko wax. Hmm. il m'a reçu il était ministre d'État très puissant. temps yooyu c'est lui qui faisait et qui défaisait. Hmm. keroog lu ma bëggoon ci moom su ko laajoon dina ma ko jox. mu recevoir mu a ma grand dama bëgg grand la may wax mu a ma grand dama bëgg nga jàppale ma ne ko jàppale ci naka mu ne ma non dama bëgg nga nekk sama responsable de la génération du congrès à Kër Massar boobu fekk mm. bi ma fi invité le 31 décembre 2009 lay wax ma ko mais Karim man soo ma PDS yóbbu ma génération du congrès du am valeur ajoutée mm-hmm. amul benn valeur ajoutée parce que moi je du PDS boo demee jël beneen responsable du PDS yóbbu ko génération du am benn valeur ajoutée. man ci tuuti peut-être doole PDS. fa ñu wujj doon gisee ma ne ko man li ma lay conseiller mooy da ngay dem jëli koo xam ne il n'est mm. na nekk sax ci beneen parti politique. nga indi ko GC loolu dana nekk valeur ajoutée pour yow. mais quand tu me prends moi du PDS tu fragilises le PDS. et c'est le terme ma ne ko tu fragilises le PDS mu mer. Hmm. ah wii mu mer ne ma voilà fekk nag mu yor benn bloc note nii sax commencé woon doon jël note mu teg bloc note bi. wàcc tànk yi fekk mu tegale koon ne ma voilà yéen xamuleen ne GC ni PDS nekkee bébé bu Ablaye Wade noonu la la GC nekkee moom bébé j'ai vu que yéen vous n'aimez pas la GC ma wax ak moom ne ko sama xalaat nga ma laaj. mais kon moom xanaa dafa doon gisee PDS tamit wujju. Euh, waaw xam nga congrès non xam nga politique nag aussi rapport de force la. politique rapport de force la. Hmm. parce que su fekkoon ne moom ñi ko doon gëmloo GC sax gëmoon nañ seen bopp ba àndoon ak moom xeex bi ba jamono yi hmm. kon doole gi mu doon wut dana ko am. mais le problème mooy dañ ko gëmul woon dañ ko doon nax. Ah te loolu laa ko ah oui bien sûr parce que Karim bi mu amee ay problème ñan ñoo njëkk a départ ñu nekkoon génération du concret ñoo njëkk génn PDS ñoo dem ñoo njëkk a dem te ñooñu la joxoon lépp teraanga yépp ba beneen bi mooy bu nekkee ci prison bi parce xam nga ci rajo lañ nekk. waaw Babacar Mbaye Ngaraaf bu Géejawaay xëy na xam nga ko xëy na dégg nga ko. xam nañ ko bu baax. très bien na nga mhm. bien maa ngi koy nuyu sama rakk la suma xarit la. Babacar mbay Ngaraaf dem na seeti ko en prison moo Karim ni toog di waxtaan di def tour d'horizon de la vie politique ci yàgg mu ne ko mais ana Grand Barry mu ne ko mu ngi fi mu ne ko c'est le seul qui m'a toujours dit la vérité hmm. xam nga loolu su ma koy wax dama koy wax ak beaucoup de fierté xam nga lu tax hmm. Karim était puissant mënoon def lu bari mënoon jox lu bari bi ma ñëwee man ma wax ko li ma xalaat hmm. neexu ko woon à l'époque mais c'est après qu'il s'est rendu compte que man li ma ko doon wax mooy li koy jariñ loolu la wolof naan dëgg mooy mujj dëgg mooy mujj mu ne Ababacar ah, Ngaye Raph voilà le seul qui toujours dit la vérité il m'a invité à Kër Massar voilà quelqu'un aussi qui connaît bien sa zone mm. effectivement keroog yi dañ fi def benn après midi bu am solo ñu visiter Kër Massar quartier yi inondé woon yëpp mu dugg fa mais dimbali ma aussi ba fi inondé woon yëpp le lendemain gars yi indi seen matériel bi defar ko defaraat ko defar ko defaraat ko ba ñi nga xam ne dañoo toxu woon seen ay kër sax dañoo mu si keroog sama jàkkay koñ bi fa la julee mu jël xaalis bu bari may leen ko ci jàkka loolu c'est une pour moi kon yow daal su ma la déggee lii xew PDS tey ak euh, ni nga xamee ne ñu bari euh, Karim tax nañu génn ko ci parti bi yow bettu la. mais xam nga xam nga ñi génn tey PDS ndax Karim mais ñoom ñoo ngemboon Karim. waaw mais ñooñu ñoo ñooñu c'est ça la réalité ñoom ñoo ngemboon Karim ñoo doon wax Karim ne affaire bi yow la di wax Ablaye Wade ne ko sa doom ji moom la gëmloo ko président gëmloo ko famille bi gëmloo ko ñëpp xeex ak ñëpp pour jàppale Karim. mais le malheur mooy bi affaire bi demee ba dëgër mais ñoom ñoo lâché Karim nee la sànq su fekkoon ne ñi gëmoon Karim ñu ngi àndoon ak Karim ba tey jii Karim doole ja mu amoon da yokk mais du wàññeeku. Hmm. mais ils ont été les premiers à le lâcher. et c'est ça que moi je ne je je je je pas ils ont été les premiers à lâcher Karim te pourtant ñoo ko dugaloon ci xeex bi mooy li ma doon wax sànq naan Boubacar Sall moo ko waxoon ne. koo hmm. bokkulul jombul dugg ci xeexam. nit su fekkee ne da ngeen di engagé benn affaire te su mettee moom mu rocceeku mm. na nga xam ki ngay àndal kan la ndax xeex boo ci xasee ba dugg da ci war a dem ba jeex et n'a pas été le cas pour beaucoup de responsables yoo xam ne ñoo doon wax ne la mm. dañ ko doon nax ngir jeexal ci PDS foo noo gisee ëllëgu parti bi ndax man am na benn seetlu bu ma def parti démocratique sénégalais ñi ci bokk rawatina ñi côtoyé président Abdoulaye Wade ñu koy ñaanal gudd fan ak wér. même bu ñu génnee si parti bi day mel ni seen xol dafa des. Euh, vraiment day am daal loo xam ne moom moo leen di lié. xam nga olof olof moo ko wax. olof moo ne xol lu ca njëkk tëj. Hmm. man de ba ba may sàngoo suuf ba ba may sàngoo suuf doo mës a dégg ma wax PDS lu ñaaw. yaw ci PDS nga dooree politique. ci PDS laa dooree politique nekk xale bu ndaw. loolu la ci dugal non. injustice parce que temps yooyu xam nga mooy temps yi ñu jàpp Ablaye Wade jàpp yu métti justement li ma ci dugal mooy quatre-vingt-trois 1983 am na lu xewoon daal ba Ablaye Wade ñu jàpp ko jour boobu fekk ma demoon Dakar. gars hmm. jàpp ko di ko dugal commissariat central. maa ngi fàttaliku bi muy jël escalier yi di dugg ni ci biir police bi dafa yéeg ba ci yàgg mu daal di gestu def sa son signe de victoire là. Hmm. ñaari loxo yi ñaari loxo yi boobu ñun ay xale lañu. mais ça nous a fasciné fasciné fasciné fasciné man loolu moo ma gën a gën a yóbbu ci Ablaye Wade. gis nga PDS ku fa jaar ku fa jaar. Hmm. mën ngaa mere ñëpp. mais tey de est-ce que du denc sa xol man de du denc suma xol ba ilaa yow parce que xol lu ca njëkk def ciy tër. noo gisee ëllëgu parti bi. ah du yomb ëllëg bi du yomb. Hmm. parce que déjà le cas Karim pose problème Karim n'est pas hmm. bon am na ñu nekk ci parti bi di ko yaakaar dina ñëw du ñëw kañ lay ñëw xam nga loolu yëpp c'est des c'est, c'est des hmm. parce que tey ñoom Oumar Sarr ñii sax dem créer seen nouveau parti ñoom. mais def nañ ay déclaration fu nekk naan Karim Wade day ñëw dans la semaine là day ñëw fii ak un mois day ñëw fii ak deux mois mais boobaak léegi xam nga ne Karim ñëwul te ñoom far nañu bàyyi sax dem nga xam ne kon affaire bi c'est compliqué mm. c'est compliqué en tout ca man de boobu problème moom aw ma ci xalaat bu bari aw ma ci gis-gis bu bari xaw ma ci lu bari itam mm-hmm. comme ni ko sénégal yëpp di dégloo rek noonu lay dégloo noonu lay xaaree mais de Karim wax dëgg yàlla bu ñu sañoon tey mu dellu Sénégal mm. xam nga lu tax mm. papaam soxla na ko yaayam soxla na ko njabootam soxla na ko te c'est un sénégalais comme ñëpp war nañ ko bàyyi mu dellu si waat lu ko yàlla jox ñu xam ne lool la ko yàlla jox. Hmm. parce que c'est un garçon très rigoureux nag ma xamal la loolu. ah oui ah lay liggéey rek. Hmm. man j'ai travaillé avec lui quand j'étais le rapporteur de la commission des finances au Sénat pendant cinq ans ma rencontré le rapporteur général mais voilà un garçon très rigoureux très rigoureux gis nga les rapports yi ma doon bind. Hmm. moom dafa doon wax sax nga ko gis avant ñu koy kii nga ne correction yi sax dañ doon def. il est, il est, il est méticuleux, méticuleux, et puis très ponctuel. S'il te dit 8 heures, mm. c'est 8 heures. S'il te dit 10 heures, c'est 10 heures. loolu raar na ci ay homme politique. caractère bu jikko boobu moom xam xam xam na xam na xam naa ko ci moom wax dëgg yàlla. li ñu ko tuumaal yëpp ba tax ñu tëj ko yow njort nga ne am na lu mu ci def wala moo ko def. ah wax dëgg yàlla man damay wax lu ma xam. Mm. ah gis naa daal ñu def ay mission rogatoire un peu partout dans le li ma ci xam daal li ma ci gis mooy daal fu yëpp fu ne ñu dugg fa man gisuma fenn fu ñu ne jëlee nañ fa mille francs gisuma ko de dégguma ko itam kon bu fekkee ne def na it man mu leeruma wax li nga ci jikkoom xam nga yenn saa yi nit di nga ko xam xam nga toll ni boo doon nelaw ñu yeela ne la moo def lii sax da nga mën a wax ndax moo ko def wala defu ko non boobu relation nag non boobu relation boobu relation aw ma moom parce que loolu relation yu yu yu dafa sori nga wax moo koy waaw yooyu wallahi boobu relation aw ma ko woon ak moom relation professionnelle laa amoon ak moom relation politique d'accord mais aw moom relation wu di ko fréquenter mu may fréquenter mu may woo ma koy woo di ànd di dugg di non non non franchement d'accord léegi ñu ñëw ci yow tey ginnaaw euh, sa dugg ci PDS euh, ni nga ci génnee ànn ak maître Ousmane Ngom hmm. gannaaw loolu ci lan nga nekkoon waaw après nag euh, maa ngi maa ngi woon dama créé sama benn mouvement en 2013 en 2013 laa créé woon benn mouvement bu ñuy wax jóg defar Kër Massar bi ma koy créé 2013 dans la perspective des élections locales de 2014 effectivement participer nañ ci élection locale de 2014 mais ci beneen bannière ndax comme le mouvement n'avait pas de récépissé on nous avait imposé de d'emprunter un un donc ñu dem benn som benn xarit un professeur à l'université abal ma récépissé par thème ci laa dem élection locale en c'est vrai on n'a pas gagné mais notre pari dañ ko gagné nañ suñu pari ndax suñu pari mooy que ñu gën a implanter suñu mouvement au niveau local ba pare siéger au conseil municipal hmm. ça a été le cas nous sommes dans le conseil municipal et depuis lors nous sommes en train de massifier de bien massifier et de très bien massifier le mouvement Jóg Defar Kër Massar mm. te xalaat naa on a appris de nos erreurs également de parce que dañu demoon seul aux élections seul ànduñu ak kenn donc c'était pour nous peser ça a été un succès également maintenant c'est dans les erreurs qu'on se redresse alors nous allons maintenant vers les prochaines la c'est la dinañ ko def léegi duñ ko def léegi de toute façon le calendrier ne dépend pas de nous mais nous nous nous nous y travaillons déjà mais cette fois-ci duñu dem seul duñu dem seul dañuy dem en coalition et nous sommes en train d'en discuter avec beaucoup de responsables d'abord nous sommes dans une grande coalition qu'on appelle la coalition Idy 2019 parce que xam nga Idrissa ak Ibou Soumaré qui a créé un parti qui s'appelle Démocratie et République et dont je suis membre d'ailleurs. Ah ouais. Alors il y a Malick Gakou, oui ak Pape Diop ak euh, Madické Niang. Je pense que cette grande coalition là dañuy ànd ci élection locale yi. Ce qui veut dire que donc cette coalition existe déjà. Maintenant bokk boole ak sunu capital de sympathie yi ñu Nga xam ne ils ont des mouvements politiques, ils ont des partis politiques. Ah ñoo xam ne ñun la ñu xam, ñun la ñu dëkkal. ah ñooñu itam ñu ngi wax ak ñoom pour que bu ñu demee ba coalition boobu taxaw ñooñu ñëw greffé wu mu nekk une très très très grande coalition. Hmm. loolu moom vraiment mooy suñu dynamique mu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. d'accord bala ñuy ñëw euh, bu baax ci local yooyu. lan hmm. moo jagadi Kër Massar ba ngeen bëgg taxawal wala ba ngeen taxawal sax mouvement. ngir waaw mais Kër masaar xam nga wopp su màggat la fépp ay metti. Hmm. Kër Massar bu dee yow xam nga koy xam nga ne Kër Massar liñ fi war a saafara bari na. am nañu un maire ndeysaan mu ngi def li man nag waaye fa dooleem yem lay yem parce que itam nag euh, moom xam naa ne jàmbaar la nag ci benn xalaat waaye nag dafa des dafa des loolu des nag ñun moom lañ bëgg a hmm. loolu des moom lañ bëgg a mottali c'est un garçon qui se bat waaye ndeysaan fa mu mën a yem yem na fa daal te dafa am loo xam ne nag Kër Massar daf ko laaj Kër Massar li mu laaj mooy nga am un bon carnet d'adresse. Hmm. am un bon carnet d'adresse nga nekk ku relationnel. te loolu itam yàlla dimbali nañu ci parce que je vous rappelle que. ki fa nekk amul lool. non foofu la desee foofu la desee. Hmm. foofu la desee te loolu du moom rek sax c'est beaucoup d'hommes politiques dans la banlieue là te xam nga man lan mooy suma atu macha allah j'ai siégé à l'assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne pour le Sénégal pendant quatre ans. Hmm. xam nga foofu ñaata réew moo fa nekk. Hmm. ça fait plus de cent pays. Union européenne rek

di préparer sama élection yi te hmm. pas plus tard qu'hier hier nous sommes aujourd'hui vendredi hier jeudi j'étais en contact avec des amis canadiens on est en train de travailler sur un programme pour mieux préparer les élections de 2002, de ou de je ne sais pas tout hmm. voilà donc euh, ñu ngi ci daal ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax hmm. alors euh, justement élection yii di ñëw da nga ci bëgg a nekk maire ci Kër Massar. incha allah incha allah. ñi may àndal nag mooy la grande coalition dont mooy euh, waa idi waa kër Idrissa Seck yi waa kër Pape Diop yi waa kër Madické Niang yi waa kër Gakou yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak xam nga nag parti yooyu moom kilifa yi ci kaw ñooy waxtaan hmm. la ñuy waxtaanee loolu la ñuy wàcc à la base donc ñun xaaruñu leen ñun xaaruñu leen en tout cas man xaaruma leen man maa ngi liggéey sama liggéey bopp ndax dama am sama mouvement boo xam ne ku may àndal ku nekk man dama bëgg a ci balance bi. waaw léegi ñi nga ñooñu nga nar a àndal noonu nga wax ci élection locale yi est-ce que yaakaar nga ne dinañu nangu nga jiitu ñu topp sa ginnaaw. mais loolu dañ koy waxtaanee hmm. lool dañ koy waxtaanee dañ koy waxtaanee yaakaar naa ne buñ ko tegee ci table bi ko nañ ko war a waxtaanee. Hmm. nañ ko war a waxtaanee rek réeroo du am dama ko yaakaar te jàpp naa ne bu ñu ca eggee incha allah a ah, mën nañoo mën na mën nañoo mën nañoo déggoo. Hmm. parce que itam du ma ne man la ou rien non ça je le dis man la ou rien ça le dis danañ ko poser te xanaa dana am ay critères de sélection parce que ay critères de choix dina am aussi parce que ne peut pas être maire n'importe am na ay critère yoo xam ne war nañ ko mën a définir si je remplis ces conditions mais y a a pas de souci si quelqu'un d'autre le ferait mieux que moi mais je pourrais bien me mettre derrière lui pourvu que rek ñu gagner parce que man li ma intéressé mooy que Kër Massar changer de visage que Kër Massar hmm. tey boo doon euh, natt jafe-jafe askan wu Kër Massar euh, hmm. lan lay doon. problème de sécurité d'abord Kër Massar am na fi quartier yoo xam ne tey boo fa demee amul lumière dafa lëndëm Kër Massar am na quartier yoo xam ne boo fa demee tey nit ñi teen yi la ñuy root di naan teen laa wax de teen dugal baag root Kër Massar am na foo xam ne boo fa demee tey mais kër yi abandonné nañ ko ndax ay quartier yu inondé la et abandonné xam nga yooyu aussi c'est des problèmes yoo xam ne dañ ko war a régler pour dëkk bu nekk dans la région de Dakar dans la de Dakar nekk la deuxième plus grande ville presque de la région de Dakar à part les Parcelles Assainies là-bas mais Kër Massar mooy la deuxième plus la région de Dakar nekk la ville la plus peuplée de la de la du département de Pikine nous sommes vingt cinq kilomètres carrés cent trente huit nous avons dépassé les habitants on tend vers le million mais kooku xam nga du dëkk bu ndaw et il est même question de de de nous ériger en département parce que le président de la République l'avait dit lors que waxoon avant les locales dina ériger Kër Massar en département foofu itam ñu ngi déglu ba xam ban ban ban ban ban ban ban ban lay mujj fan lay mujj pour dire que Kër Massar du dëkk bu ndaw comme du dëkk bu ndaw nag waruñu ko teg ci loxoy n'importe qui. assemblée nationale nekkoon nga fa nekkoon nga itam euh, Sénat euh, ñaari institution yooyu benn bi fi des sax surtout ci lay gën a taxaw dañu am responsabilité bu xëy tey ci euh, li nga xam ne moom mooy yorinu alalu askan wi parce que ñoom ñoo war a taxaw saytu li gouvernement bi di def ak ni muy yore alalu askan wi yow ba nga fa nekkee xëy na taxu koo yàgg noonu at yi ci ginnaaw rek la mais ndax diggante boobook léegi am na loo fi gis ci changement ndax dañuy wax ne assemblée taxawul taxawaay bi war bu ñu xoolee scandale yi am ak yooyu yëpp euh, boo ñu mënee ñëwal ci jamono ji nga nekkee ci assemblée ak tey surtout jàngat bi nga def euh, ci taxawaay bi dañuy wax majorité mécanique assemblée boo xam ne askan wi yëguñu ko gisuñu vraiment njariñ li nga xam ne amal nañ ko ñi ñuy teewal ci penc moomu. waaw assemblée bi di wax dëgg yàlla j'ai beaucoup de respect pour mes honorables collègues députés j'ai beaucoup de respect pour l'institution boo njàngatee dëgg assemblée ni muy doxee da ngay xam ne assemblée nationale bii nii nii nii da ngay xaw a am kersa sax hmm. ndax amul benn question essentielle question essentielle boo xam ne dañu danañu permettre aux députés de s'exprimer député ku ko teree wax loo koy def loo député boo ko teree wax loo wax ñu ne la sans débat question yu essentielle mais y a pas de débat question yu essentielle yu ne en procédure d'urgence tout est bâclé lépp à la va-vite man dama xaw a rus pour cette franchement franchement franchement ñun on n'a jamais fonctionné comme ça gis nga en tout cas ci histoire politique li ma ci xam man li ma ci xam je peux bien me tromper hmm. mais gis la neuvième législature la neuvième législature avant avant l'alternance de 2000 hmm. législature boobu bu mel noonu dootul am au Sénégal je pense que c'est la meilleure des législatures de l'histoire politique du Sénégal Assemblée nationale euh, ah que c'était des xam nga une assemblée où il y a Abdoulaye Bathily mm. une assemblée où il y a Major Diouf une assemblée où il y a Djibo Ka une assemblée où il y a Abdourahim Agne une assemblée où il y a Doudou mais xam nga boobu assemblée tout n'importe quoi imaginez lii tey intuitu boo leen jëlee de manière intrinsèque c'est des hommes de valeur mais ils sont dans un cas carcan boo xam ne kenn mënu ci épanouir parce que dafa am benn ligne de conduite bu ñu leen teg boo xam ne un bon député mënul mënul nekk à l'aise dans ces conditions là loolu mooy le problème parce que le régime APR mais doo comprendre da nga xam ndax c'est un régime libéral un régime doo comprendre hmm. tout est concentré entre les mains d'un homme qui dit ce qu'il veut et qui dicte sa loi comme il veut et les gens suivent comme une comme ça donc les gens ne sont pas à l'aise dans cette institution là et c'est vraiment malheureux c'est vraiment malheureux c'est vraiment malheureux. sànq yaa ngi posé équation wu kan moo war a nekk maire dama bëggoon ñu yegsi ci kan itam moo war a nekk député euh, tey boo ko méngalee ak ñi fi nekkoon démb comme ñi nga tudd léegi. xam nga xam nga député moom c'est une représentation nationale. Hmm. kon bu ñu député forcément dafa war a jàng dafa war a am tel diplôme dafa war a am tel diplôme. Hmm. dafa war a am xam-xam ci tel ci tel mais député war na am benn niveau bi au hmm. boo xam ne bu ñëwee ñu jox ay textes la koy tegee. mënuñ ko xam dara te ils n'ont pas d'assistant parlementaire xam nga kooku aussi tam loo ko wax yaa ko tooñ mais li tax itam mooy c'est quelqu'un boo xam ne tey boo ko ne indil ma mille électeurs mu dem indil la mille électeurs te comme parti yi mbooloo lañ bëgg mais am mille électeurs ah mais kooku itam duñ ko bàyyi fële jël benn waay bu am doctorat te mënta a ñaari ginaar xam nga loolu aussi c'est le problème mais un député dafa war a am benn niveau bi am une bonne assistance parlementaire nga xam ne bu ñu ko indilee ay texte mu toog soon son assistant mu càmbaral ko ko wax ko ko ba mu leer ci boppam même bu dee en wolof wala en pulaar wala en séeréer mu wax ko ba mu leer ci boppam bu mu ñu ko défendre parce que y a la traduction simultanée maintenant mm. pas forcément rek nga làkk en français à l'Assemblée nationale hmm. donc boo ñëwee tu parles sa nga dégg mais y la traduction simultanée mais ñu ko war a dégg ñëpp dégg ko mais maîtrise des textes mooy le problème des députés mooy le problème des députés ak absentéisme mais da ngay gis assemblée boo xam ne des fois du ñu quinze personnes quinze personne ne vient ñu ngi ko ca yeneen i soxla tey quand même un député c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui démb tey ngeen di teewlu ci réew mi FM ñu dalal Amadou Barry nekkoon fi député sénateur bokkoon ci parti démocratique sénégalais taxawal nga mouvement ndax da nga am yéeney soppi ko parti non non non non non non non non non mouvement politique la du ma ko def parti politique parce que aussi xam nga la gestion d'un parti moom c'est un peu compliqué c'est lourd c'est lourd donc ñun suñu mouvement bi dimension locale la am c'est juste pour la commune de Keur Massar c'est juste pour la commune de Keur j'ai pas j'ai pas cette ambition là de créer un parti politique il y déjà trop au Sénégal il y déjà trop au Sénégal donc je pense que loolu la quoi. Hmm. kon xanaa yow sa ambition ci nekk maire kese la yem. non pas nekk maire kese xam nga nekk maire sax déjà c'est un c'est palier. Hmm. boo nekkee maire déjà bu fekkee ne am nga un bon carnet d'adresse comme Mais il y a les élections législatives qui viennent. Il y a les élections présidentielles qui viennent. bu ma nekkul candidat itam mais mun naa peser sur la balance ba ku bëgg nekk président du Sénégal mais di taal sa oto ñëw ba sama buntu kër toog wax ak man parce que je pèse. Hmm. parce que man li may intéressé. c' le Sénégal mais li ma intéressé mooy fii ma dëkk. Sénégal lu mu neex neex neex Kër Massar neexul je me dis que fenn neexul. Hmm. Sénégal ah oui bu lamp yëpp takkee ci Kër Massar lamp tàkku fii damay wax ne lamp tàkkul fenn donc man Kër Massar moo ma ñor. Kër Massar d'abord képp koo xam ne bëgg nga Sénégal boo ñëwee Kër Massar wax lu waa Kër Massar dégg man dinaa la jox loxo mais boo demee wax ko feneen man loolu sama yoon newu ci ça ne man y a que Kër Massar qui m'intéresse mm-hmm. parce que fi laa am sama cent cinquante mètres carrés fi laa dëkk d'accord li ngay wax ni nag dañu koy dégg lu bëri ci politique yi fi ne yaa ngi campagne dafa mel ni ba élection di ñëw da di dig lu nekk askan bi mais bu ngeen faloo rek génn ci ba mu set ne ci yeneen mel ni mosoo leen a mosoo a man lan laa diggee man ma dara de Fatou man diggee woo mm, ma ñor Kër Massar moo ma dañuy gis ah, la loolu nangul naa la ko mais dama bëgg ñu yegsi ci politiciens yi nga xam ne dañuy dig askan bi bu ñu faloo génn ci ba set wecc yow loolu man nag du man nag man nag du ma genre boobu hmm. man li may gis nii je marche la tête haute dans la commune de Kër Massar mbedd bu ma neex lay jaar maay la seul homme politique bu de Kër Massar boo xam ne aw ma sax garde corps ah mais amagoo yenn fonction yi xëy na ak yenn. responsable ah, yan fonction yan fonction ci yan fonction ci. Ah, ñi am garde du corps dañu nekkoon nañu ministre nekkoon nañu dara wala. tout non mais yow man ma gis non hmm. ministre. non wala wala ñu yoroon ay poste de responsabilité je veux dire. mais gis naa fi ay ñoo xam ne nekkuñu sax délégué de quartier am ay garde corps. Ah. di impo non je suis non man c'est-à-dire je suis un homme libre loolu laa la bëgg a wax. d'accord moi je suis un homme libre je marche comme je veux je vais où je veux seul voilà c'est tout. toog ci grand place yi naan ataaya toog ci grand place yi waxtaan ak nit ñi nangam nangam man comme c'est comme ça que je fonctionne. Mm. mais bi ma nekkee député mënoon naa wut garde corps. te boo nekkee maire tamit loolu nawul changé. non non fii laa dëkk man xam nga cette cette fois ci dañu ne le maire est élu au suffrage universel direct. kon tu seras le choix des populations waaw kon tu seras le mais nan la population yi di la choisir yow ah, ba pare nga leen di taw di di di di barricade wu. di bari na fi de bari fi de. man de maa ngi koy wax. ci kaw bu rajo dañuy saafoonteeg nit ñi dugg génn lu xew ñu ñu ñu jóg waaye bu ñu xasee falu moom. balaa nga leen di séen sax. loolu ki koy def mooy kan. Mm. mooy ki nga xam ne peut-être dafa nekk maire dëkk bii ba pare dëkk feneen. man aw ma beneen kër benn kër laa am. Mm. man su ma nekkoon maire it mënumaa toxu kër Massar gii laa dëkk fi laa am kër. su nekk maire kër Massar ba pare nag dëkk Kaolack mën naa di làqatu nit ñi mais mënu ma loolu man fii laa soxla sama kër ku fi ñëw boo sonee dañ lay ubbil duñ la laaj kan la ana jiw ubbil la dugal kaay am na ku lay seet nangam nangam man c'est comme ça que je fonctionne xam nga loolu lu tax ma koy def. 1998 hmm. bi ma nokki nekk député boobu député yombul fii boobu député yombul fii à part les Demba Seck ak les Aliou Samb mag ñooñu man bu yeboo ma ne la maa njëkk a nekk député ci zone bi yëpp ba ngay dem jandeer caaray gaar caaray kaw jëmbal Malika Kër Massar ba ba ngay dem Bambilor maa fi njëkk dégg la titre de député en 1998 sama yaay am na lu ma waxoon yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ma ak loo mënti doon ci àdduna bula la nit di seet mukk ñu ne ko yaa ngi nelaw ça je l'ai bien retenu de ma bu nit di seet mukk sa waa kër ne ko day nelaw ak ku mu mënti doon waxal ak moom boo ko mënee dimbale nga dimbale ko soo ko mënul dimbale nga wax ko wax bu rafet mu dem mais bul nëbbatu gis nga loolu. Hmm. il est très très très bien assimilé te yàlla xam na ne noonu lay fonctionner depuis lors depuis lors depuis lors sama kër amul amul amul sax ay heure d'audience ak machin machin les gens viennent comme gis nga tey vendredi. Mm-hmm. bu ñu woon jumaa ba pare nga ñëw fi Tivaouane tey vendredi rek exemple boo wax noonu boo julli ba pare nga ñëw fi. Mm-hmm. tu vas voir et ça chaque vendredi chez moi sant yàlla. man noonu laay dundee. d'accord ah, ah. Euh, ak tey la ñu nekk euh, ñu bëggoon a ñëw nag ci euh, régime mu Abdoulaye Wade président bi nga xam ne nekkoon nga ci ak tey fi réew mi toll ci Macky Sall ban jàngat nga def boo méngalee ñaar yooyu. xanaa rëccu Sénégal yëpp rëccu le départ de Wade Sénégal yëpp ñoo rëccu le départ de Wade parce que Wade bi ko fi gars yi di jëlee dañoo defoon ne danañ gis mieux. Ils n'ont pas élu Macky parce que Macky avait le meilleur profil. Ils ont, ils ont sanctionné na Wade dem rek ñu indi keneen mais yow xam nga si jëmm bopp ni depuis de 2012 à maintenant li fi am comme scandale dafa sax ñaaw nit toog ci rajo di ko si wax li fi am ci scandale luñ doon wax am Ablaye Wade rek luñ lu ko ñaar fukkam la ñu gis sous le régime de Macky Sall lu ko ñaar fukkam bis bu nekk na nga dégg lu jogati parce que nag parce que nag garab bu la sutul du garab bu la sutur la may ker nous avons à la tête de des hommes qui sont pratiquement dans le besoin bi ñu accès au pouvoir et ils sont en train de faire leur poche c'est aussi simple que ça. kon daal Macky sutul waa Sénégal ba di leen mën a may ker. ah non non non non non attanu réew mi dafa diis. waaw hmm. non dafa diis réew mi dafa diis quand même réew mi dafa diis ah oui le Sénégal pèse lourd très lourd sur ses épaules am na yéene bi mais mënul xam nga jéem tële du gàcce jéem Macky bëgg na doxal mais mënul la preuve mooy xam nga son poste de premier ministre qu'il a supprimé là tey il le regrette dans son fort intérieur tey su ko mënoon di dellu si dina ko dellu si waat te loolu ci rajo lañ ko waxee dinañ dem ba ci kanam réew kenn ko diriger de manière individualiste collège mooy diriger réew partage mooy diriger réew mais man man man le jeu est haïssable te moom dafa bëgg lépp ko ci ay loxoom son parti y a pas de numéro deux c'est lui le pays y a pas de premier ministre c'est lui loolu yàlla moo mën fu ne nga defar loolu nit mënu c'est pas possible moo tax affaire bloqué tout est bloqué dans ce pays là tout rien ne marche lii moom il est conscient ci xam na ko xam na ko bu baax a bi nga nekk PDS ah. yéen relation nga amoon ak moom Macky Sall. waaw moo en fait ñoo bokkoon ay instance on était ensemble au secrétariat national parce que moom PDS la ma fekk bi mu ñëw PDS fekk. Hmm. relation bon. amical xamante bon am na sax benn surnom bu ma daan tuddee mais loolu du ma ko wax ci rajo. oui mm. <laughs> oui. xanaa du jàmm non non non non non jàmm kay ak salaam non jàmm rek ak salaam dafa daan tooñ rek quoi. ndax ma daan tooñ rek quoi bon hmm. ma daan tooñ loolu nag moom du dara quoi c'est taquin ko hmm. <laughs> saf xolam la nag boo toog nag moom li ngay gis muy hmm. <laughs> la nii non non na mais il taquin ku ku saf xorom la quand même ku saf xorom la nii boo toog waaw mais amuñu woon ay relation yoo xam ne quand même comme ni ma la ko waxee woon ci Karim yoo xam ne on se fréquentait nangam nangam on waaw waaw ñoo doon partagé ay secrétariat national ay bureau politique ay instance politique lañ doon partagé vraiment on avait des relations amicales waaw waaw vraiment hmm. mu yoree réew mi surtout ci wàllu gestion euh, transparence ak euh, zéro sobriété la la ñu waxoon zéro zéro sur dix zéro sur dix zéro sur dix sur ce plan là moom dafa échoué lamentablement honnêtement dafa échouer lamentablement ah oui vraiment la gestion de ce pays là ça pose problème ñi tamit dimbali wuñu ko mais xoolal les rapports là rek IGE di génn ak ARTP li ñu doon génne yow gis nga rapport yi kan lañ ci épinglé wul lan moo ci mujj dara loolu lu ay nit sos ay kuréel yi mu créé ay cours de contrôle ay ay cours de contrôle yi yi mu créé corps de contrôle yi mu créé ñoom ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo koy liggéey saytul ñoo koy liggéeyal ñoo koy présenté ay rapport ne nangam fi am na fii nangam am na fii nangam am na fii na mais loolu ñu ko wax ne am na fii yëpp ci gis du mujj fen du mujj fen donc finalement l'affaire bi doo comprendre doo comprendre. Hmm. sa xel musul daj dem euh, fekk ji ko ni ko yenn libéraux yi defee. musul na ma ko non non effectivement sama xel dajoon na ko et defoon naa ko sax en en quelque sorte parce que man mosoon na ma recevoir man ak dootul xaj toog nañu mu ne dama bëgg ngeen ñëw jàppale ma parce que alors j'ai un déficit am ji mu expliqué yoo xam ne peut-être mënu ma ko wax ci rajo mm. ne ma dama mu ne dama bëgg ngeen ñu dugal seen loxo ci affaire bi wala ngeen jàpp ci liggéey bi effectivement moi j'ai essayé mais foofu neexul c'était peut-être vers les années deux mille deux mille deux mille deux mille deux dix-sept deux mille seize deux mille dix-sept comme ça Alors j'ai essayé, mais euh, les gars de l'APR là, c'est des gens sont pas très agréables. Hein. dañ laa siis. wuuxu moom kay bu ñu yemoon ci six six fois quatre ngay wax kay moom kay moom vraiment. wuuxu bu dee nga bëgg a ñëw pour liggéey moom bu doo fa toog bu fekkee nag dafa am leneen luy wut moom xëy na nga toog fa di wut mais bu fekkee nga ñëw pour liggéey. Hmm. il n'est pas facile de travailler avec ces gens là. Ah moo tax ma rétrogradé. tel ah oui non mais amuñu bi may def benn te Mimi Touré doon ko présider rek jour boobu rek le maire le maire de la commune. Hmm. dafa ñëw indi ay garde corps bi ñëw di xeex ak ñun jour meeting bi. Ah. xeex dooleem tey kurpeñ fii coow li jàpp karab karab. sa meeting ba yow meeting ba. <laughs> te ngeen naroon bokk parti. te ñu waroon leen jàppale ñun dañ leen doon jàppale si rek parce que hmm. ñun tey lu dara taxu fi ñuy daw bay daanu yàlla bàyyi wuñu ñu a baax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a mais comme le président l'avait demandé ah nous sommes des nous sommes des républicains ñu ne ah mais ma waxtaan ak sama yi ba ñu joxe seen accord ñu ne voilà donc il faut le faire mais dañu dugg rek jour boobu ma lay wax xeex bi am fi fii nit ñu jàppante fii histoire ma ne euro oh, écoutez kii moom jarul ñu sori. Hmm. loolu président yëg na ah je crois bien parce que Mimi était venu présider la cérémonie après nee na ma elle a rendu compte au président qui était très satisfait très satisfait et à l'issue de ce meeting d'ailleurs le président devait selon le SMS que Mimi m'avait balancé alors mais depuis lors j'attends j'attends j'attends ba finalement ma ma dem daal doxi sama dox. kon yow mbaa loolu loolu nga leen jàppal ba tey. déedéet déedéet hmm. déedéet ah non politique ba may politique dëgg ma ne la Macky Sall PDS la ma fekk. kon kay man xam naa lu ñuy tojee sama ku ne xam nga nooy tojee sa bopp. waaw mais annoncé sa kii euh, ñëw def sa meeting bu mag après ñu. Euh, teg la noonu si de touche bi loolu tamit. Euh, Ah, ah lu tax waxoo ci xeex bi <laughs> xeex bi <laughs> waxoo ci xeex bi di wax ci banc de touche xeex bi kay nga war a wax xam nga un maire qui vient avec son staff waaye ñëw fii ay mag toog ay kilifa toog ñi ñëw di xeex di jàppante di dóorante xam nga loolu jekkul rafetul ci ay kilifa yoo xam ne yow loolu yaa ngi doon xaar peut-être ay sanctions jógee ci président ndax loolu rafetul ci parti wa rafetul ci parti hmm. bon kenn waxu ci dara kenn defu ci dara bon j'ai dit écoutez euh, ñun comme dañuy politique te ñun xaalis taxu ñoo jóg mm. dañu continuer ak suñu mouvement bii di jox ak suñu moyen personnel kon nga xam ne man xaar moom dara en retour ci ñoom mais su fekkoon ne dafa am lu ma doon xaar mais ak luñ ma mënti def damay sëgg rek daan ne voilà parce que lii lañ soxla nañ leen sëgg ba am li bëgg mais comme ñun dañ ñëwoon politique te gisuñu fuñ ko defee ñu delluwaat ci suñu base di politique suñu ñu jóg ñoom ci terrain bi te xam nañu ñun nous en face de ils le savent très bien et ils le regrettent d'ailleurs hmm. am na ay audio yoo xam ne su ma la ko balancé woon ay responsable APR envoyé ma ko mais da nga naan ce n'est pas possible amul lu ñu deful pour ma dellu si jàppale leen j'ai dit ñett il est hors de question hmm. moo tax présidentielle bi passé c'est moi qui ai coordonné la coalition Idy 2019 à Keur Massar ah oui ma coali ma coordonné la coalition IDI 2019 ici à Kër Massar. Hmm. parce que ñun politique la def xam nga il est dans il dans l' hmm. kon kay ku bàyyi parti au pouvoir dem ci opposition bi yow kon wutoo xaalis wutoo leneen politique rek nga bëgg parce que c' un virus. c'est un virus c'est un virus. mu ngi ah, daal est-ce que tamit da nga amul pexe rek ndax gaa yi moom demee xajaluñ la bëri nga ci morom ah PD lool moom ñu ngi leen koy waxal. dañuy dañuy si saate jóge fi nga jóge ak sa riir ñëw ba foofu ñu tëj seeni buntu di la def ay affaires yu sew donc. Euh. waaw loolu nag xam nga am na ñu koy nangu am na ñu ah. Ah, am na ñu ko parce que reer yi daaw yi bu doon doy bu doon reer yi doon doy reer daaw yi doy. ñun hmm. dawuñu pour am lu ñu lekk am lu ñu naan. collaboration lañ doon def si bu fekkee ne collaboration bi c'est pas possible mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller ailleurs xam nga opposition dafa metti mais ñun opposition moo nekk suñu deret ñun moom lañ xam ñun xamuñu sax parti au pouvoir gis nga ñun bu ñu nekkee au pouvoir PDS bi ñu nekk PDS di dóorante kurpaj mu ñu parti d'opposition kon ñun bu ñu ñëwee di la jàppale boo ñu féexalee ñu jàppale la boo ñu féexalee ñu jël la vie ñu non ça gis nañ fi ka Cissé ak yeneen ak yeneen non non loolu itam dana indi yenn saay askan wi di xep woy politique yi non non loolu moom c'est pas la bu ngeen di wax sax daanaka du saf dara mais loolu moom d'accord naa ci ak su wax ji ñaaw mm. du cëru kilifa def lu ñaaw du cëru kilifa mooy li ma la wax léegi rek xam nga xeex a tax ñu presque bàyyi mm. xam nga ka tax a bàyyi xam nga du saagante dégg nga mu bu baax mm-hmm. ku xeex tax a bàyyi du saagante parce que bu fekkoon ne mën ngaa saagante kon da ngay taxaw xeexante dóorante bëggante c' est pas ça la la politique bu fekkee ne c' est l' art de gérer de la cité mais mu ngi mun ni ministre bu yor martoom di dóor wala maçon bu yor truelam di tabax boo demee ba amatoo sa marto wala sa truelle pour tabax mais nekkatoo maçon wala nekkatoo nekkatoo menuisier nekkatoo artisan pour defar kon ay saaga ay wax yu ñaaw ay sos surtout sos ki gën a bon ci politique sos dara te loo xam ne teguloo ko fenn du tax nit am dara gis nga faatu ma yàq sa taxul man ma am hmm. wax ci yow lu rafet lu tax man ma ñàkk yàlla mooy joxe yàlla moom mooy joxe bu lay jox du ma tàggu bu fekkoon ne wërsëg tey man ma man la ko doon séddaleloo su la meree tey xiif rey la moo tax moo ko yoral boppam hmm. kon gis nga jox sa cër du wàññi sama cër dara du wàññi sama cër dara de faatu moo baax faatu rafet faatu moo ceci faatu du yàq ci man dara dara dara dara kon wax ju ñaaw man day man day laajteel fu la neex du ma xuloo xeex du ma saaga duma door waaye am naa fulla ju toll ni nag sama objectif fu ma jëm sama sama plan ma teg ko nii dara dara dara mënu ma détourné damay dem foncé ba li ma am bëgg li may li may wut ma allah ci kaw bu fekkee moo neex sunu borom tabaraka wa taala hmm. du saaga nit du tam nit du dëkkal nit fu mu dëkkul du ma dëkkal nit fu mu dugg parce que bëgguma man du dëkkal ma fu ma dëkku du ma wax nit lu ñaaw mais am naa fu la ju toll ne li ma bëgg moom ah déet kenn du ma fa tee egg de bu soobee yàlla hmm. waaw bu dee fulla ak fayda rek la moom dinaa fa egg bu soobee parce que am naa fulla ji am naa fayda ji te xam xam naa fan laa fay ci choc. noo noo gisee ëllëgu réew mi surtout ci wàllu koom ak euh, mbas mi nga xam ne ci la ñu ah, nekk. moom kay moom moom moom ñaan yàlla rek waaye xam nga ne réew mi waxuma la sax après mbas mi mbas maa ngi fi sax dëkk bi commencé lang. Hmm. bu mbas mi demee moom ba kon dëkk bi du tëdd jaaxaan. <laughs> wàcc ci suuf. jaaxaan loolu kay mooy coow li xam nga bu ñu ay taux de croissance ay un virgule pour cent loolu kay xanaa mooy yëy leen xeer loolu mooy yëy leen loolu kay loolu kay waxul may jarul dem ba di ba sori bu dee dëkk yu mag yi ci seen bopp ñëw mënutu la taxaw waxantumaal dëkk boo xam ne sam waay demul dikkul hmm. Sénégal xam nga moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëkk bu néew doole la coow li li muy bari bari bari dëkk bu néew doole la bari wuñu doole àndu nu déggoo wuñu yéenante wuñu jàmm bëggante wuñu alors que ça nu muy compli nu muy nu muy doxee les Sénégalais dañoo soxor entre eux da nga ciy gis koo xam ne sa saa yu xëyee lu yàq nit rek lay dox loolu rek lay wax loolu rek lay xalaat du wax lenn luy defar xam nga loolu aussi du defar réew loolu du defar réew dañu war a bëggante soppante yéeneente jàmm koo gis def ko comme sa bopp loo yéene sa bopp nga yéene ko keneen mais man ma bëgg dee lekk lu ba suur te yow nga dëkk ci xiif bi xam nga loolu aussi yàlla du ko seetaan et c'est ça le problème du Sénégal les gens du ñëpp nag mais am na ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla bu ñu sañoon moom tey nit di lekk ay xeer ñoom ñu lekk seen i xam nga moom mooy loolu Amadou Barry amoon nañu mbégte lool dalal la ci plateau démb ak tey xanaa bàyyi la rek nga tàggoo. man daal sama wax bu mujj mooy rek di nuyu waa Kër Massar yëpp di leen sargal ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di leen wax ne maa ngi leen di bàyyi xel di leen wax ñu ndax ñu ngi jëm foo xam ne dinaa leen soxla te bu keroogee dinaa bëgg ñu taxaw taxawaay bi xam ne moom laa soxla maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di la gërëm yow itam di nuyu mon frère Modibo Modibo c'est un homme exceptionnel ku baax la boo déggee may wax sànq ñoo xam ne dañu rafet xol Modibo boobu ci la bokk. Hmm. il a été combattu dans ses derniers retranchements mais il est resté zen ku baax la ku baax la maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm te passage bi bëgg naa mu dégg ko moom. bëgg naa mu dégg moom ci réew mi la bokk. voilà très bien waaw bëgg naa mu dégg ko. Uh-huh. sama xarit la Modibo Diop ku baax la. te borom xam-xam la yoo xam nga loolu. te du ko wone. Uh-huh. buy dox da nga yaakaar ne kii demul sax daara. loolu mooy nit yàlla loolu la bëgg. mais da gis koo xam ne sama waay àllarba la dugg école alxames mu génn mais bu xëyee kartu cartable am yaakaar ne réew ci loxoom lañ ko war a teg ay nax la. kon waa Kër Massar incha allah maa ngi ñëw à tout à l'heure rendez-vous pour les prochaines élections locales. jërëjëf yàlla ko ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon euh, député nekkoon itam sénateur euh, bokkoon ci parti démocratique euh, sénégalais tey mu ber yoonam. Mmh. taxawal mouvement defar Kër Massar du noonu la. jóg defar Kër Massar jóg voilà fas yéene ah. samp ndëndam kon ci élection locale yi ñu dëgmal. ñëwoon mm. nañu ci démbam ci parti démocratique euh, sénégalais ak itam lu soxal euh, réew mi. gërëm mm. euh, ñi doon déglu ñëpp gërëm itam jaawo jàllo mi fare woon ci machine bi. ak mm. Modibo Diop mi mu tudd léegi nekkoon jiital ASER. bokk ci kër gi bokk ci ñun wax dëgg yàlla dox itam ngir waxtaan wi mën a am ñu am yaakaar ne wax nañ fi lu amal njëriñ askan wi lu ko may itam ñuy jéggaloo Fatou Thiam Ngom fare woon ci kàddu gi. ñëw dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ba tey ci démb ak tey jërëjëf bari